alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñoo ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nuyu ziyaara ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi kilifa aada yi ñaan yàlla dolli jàmm ci àdduna bi nga xam ne moom lañ nekk waaye ak jafe yi nga xam ne moom lañ ciy dund yépp yàlla jeexal ko mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñun fii ci sunu média ñu am mbégte nag dellu siwaat tey ci sunu xutba di jour jëmale ko nag ci li nga xam ne moo kew ci Sénégal gi nga xam ne wax dëgg yàlla kàddu la yoo xam ne yu ñaaw jógee ci jëmm joo xam ne tegtelewul dara lu mooy rek jëmm ji réer jëmm joo xam ne li mu wax dara la ci xamul mbokk yi usikum usi bi nafsi taqwallahi fi sirri wal jahr wallahi atiyon allaha wa atiyon rasul wa uli amri minkum yàlla tabaraka wa taala joxoñ nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne suñ ko toppee rek topp nañ yàlla tabaraka wa taala loolu nag bari na ay tegtal bari na ay dalil yoo xamante ne si ñun ci lañ mën a jàpp jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wér ñu ne suñ ci jàppee rek egg nañ ci yàlla tabaraka wa taala te loolu la yàlla wax kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di dellu siwaat nag di gën a fiddali ak sunu cofeel ak mbëggeel ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci bërëg gën a fiddali nag ci topp ay tànkam di royit lépp loo xam ne moom la ñu joxoñoon te yonent bi léppam njub la di wax ne macha allahu ki nga xam ne moom mooy Moustapha Jaxate kàddu yi nga xam ne yëgati na ko ci émission boobu nga xam ne man li may njëkkee sax foofu mooy télévision yëpp maa ngi lancé appel bépp émission boo xam ne ñu ngi koy def ngir yàlla nañ fa teg ñoo xam ne ñoom lum gàtt gàtt ci diine ji am na luñ ci comprendre su fekkee loolu mënul am bépp émission buy daw ci télé yi ñu ut benn waay benn ustaas la benn borom xam-xam la bu ñuy teg ca wet ga donte sax moom émission ba du ca sori lu mooy suñ buggee laal dara ci diine moom moom mën leen défendre waaye dëgg-dëgg émission boo xam ne ñaari mbaam lañ jël boole leen ca émission ba invité beneen mbaam muy ñetti mbaam duñ wax dara lu ñu mën a jëriñ ñun ay nit lañ yu am xel Moustapha Diakhaté nag wax na wax joo xam ne bañ ko dégloo ñun da xaaruñu woon kàddu yooyu noonu ci ñi nga xam ne sax ñoom ñoo inkaar diine l'islam weddi ko xaaruñu woon seen kàddu ci loolu moom nag dëgg-dëgg muy wax ne ñaari way juróom mooy ndeyam baayam ñoo gën way jiri ku tedd ki mooy Maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu bañ ko déggee métti nañu lool waaye ñun loolu sax dañu jàpp ne comme benn dof boo xam ne moo jàpp di wax yeewee ko ci gétt ga ñëw taxaw mel ni li muy wax waxul ak ñoo xam ne ay boromi xel lañ xanaa moom xamut ne way juri yonente yàlla moom sallallahu alayhi bu fekkee dafa wax ne ñoom moom xamu ko moom na wax xamu ko waaye ñun ñi nga xam ne depuis ñu nekk ay tut tànk yu ndaw lañ ñu doon jàngal lool bañ koy wéyantoo yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi kuy woy juróom bu góor Abdallahi kuy woy juróom bu jigéen Aminatu lool kay ñëpp xam nañ ko xale yi sax dañ koy woy beneen bi ci topp mooy lu tax mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay woy juróom ñu ngi safara yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay woy juróom judduwuñ ci lislaam deewuñ ci lislaam yow xam ne ba ngay juddoot booba yonent bi est-ce que ñoom fekkee nañ islaamu yonentu yàlla moom sallallahu alayhi wasallam tamit daf ko waroon koo xam ne fekkeewut islaamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bi moo wax ci wax joo xam ne ju wér la yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne askan yëpp bu ñu leen boolee daje dajale leen moom mooy ki leen gën askan ndax yonent bi moo wax ne moom ci luñ tànn la jógee waaw balaa la sax loolu yonent bi moom xanaa yow Moustapha Diakhaté war ngaa nangu ne yonent bi kuñ tànn la waaye kuñ tànn nag nan lañ koy mën a jëlee si luñ tànnut wal baladu wal baladu tayyibu yaxruju nabaatu loolu kay alquran moo ko wax léegi nag bu fekkee yonent bi sallallahu alayhi wasallam kuñ tànn la war ngaa xam ne ku yem ni yonent bi sallallahu alayhi ak yàlla nim xereñee nim xereñee ci lépp lu muy def ci àdduna bi ak nim ko xamee dina tànn yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jikko bu mel ni nim ko bindee ba pare di ko jëlee ci ñaari wayjur yoo xam ne yu salte lañ dëgg-dëgg Moustapha Diakhaté yaa mën fen yaa ñeme yàlla yaa bañ sa bopp yow yaa xeeb sa askan yaa gàccal sa mbooleem askan yow da nga wax ne yonent bi sa ndey sa baay moo leen gën yow sa ndey ak sa baay luñ ñu jëriñ xanaa yow mii de lañ fi indi yow mii nga xam ne yow benn mbaam mu yeeweeku nga rek ñëw taxaw di fen di wax say kàcc yoo xam ne yow tegoo ko fen pour lan lu tax ngay def loolu euh, ñun nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi am naqar bu baax a baax a baax a baax di wax ne dëgg dëgg nag Moustapha Jaxase tooñ Jaxase sax nga tudd nga sant yàlla nag moo dogal ne alquran moo jàngale ne. amul benn ci xeet yi ñoo xam ne danañ leen mbugal lu mooy hatta nabhasa rasula lu mooy dañ leen yónnee yónnee wuñ yónnee lu mooy ñu yónnee yónnentu ci ñoom li ngay wax seetoo ko sax xanaa dangaa jàngul nasabun fuddilun kiraamun wa kullun mawsinun la muzafiun bi tawali jàngoo ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam Baay Ñas wax na ne kuñ tànn la jógee ci luñ tànn jógee ci lañ tànn lañ tànn maamam yëpp ñu set lañ yonent bi mosta mosta am sax maamam ji si ñuy tudd yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mosu si am koo xam ne maami njaalokat nga wala defkat lu bon nga ba tax ñu lay peese di la yóbbu kana xanaa laayaam ji yow jàngoo ko yàlla nee na du ma mbugal kenn ci ñoom lu dul du ma mbugal kenn ci ñoom lu dul rek ñoo xam ne yónnee nañ ab ndaw ci ñoom Sénégal nag nii rek mbaam mu yeewee ko rek ñu ne ko kaay wax dof bu yeewee ko rek ñu ne ko kaay wax ku bon ku yeewee rek ñu ne ko kaay wax wax balaa nga koy wax da koy seet su fekkee seetoo ko waroo ko wax tey balaa ngay woo war nañ kam yow loo xam ci diine ji seen politique bu salte bii ngeen topp topp ngeen di wax booba léegi yéen a ngi woon ci kan jaari sow ca gannaaw aji saar ci bii Ousmane Sonko nangam lii rek ngeen fi nekkee pour lan xeexoo ensemble lekk alalu nit ñi seen poos yi di askan wi di sonn lii rek ngeen fi ne bu fekkee nag yow lii nga xam yem yemal ci loolu waaye yonent bi sallallahu alayhi jàngal mbindum Mawlana Cheikh Ibrahim bam lay wax naan nuuruhu awwalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal anjali te lam yasal nuuruhu bi hayni ilaahi fi intiqaali fi l ba da intiqaali yow yaay kan yow sa ndey sa baay ku ko xam wëral ci dëkk bi yëpp foo dem taxaw ne kuy ndeyi Moustapha Jaxate kenn du la xam yow yow kenn xamut sa ndey kenn xamut sa baay te ñun ñëpp xam nañ kuy wéy jur yi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nañ ñuy maamam xam nañ ñu ko meññi jàngal nañ ñu ko boo ko xamut wala yittewoo ko yow demal ak sa mën a kàcceeg sa mën a fen dëgg dëgg Moustapha Jaxate yaa yërëmut sa bopp yow xanaa bàyyi xel dajeeg yonent bi ëllëg Baay Ñas radiyallaahu anhu wax na ne dundam gi may na ko yonent bi mbooleem ñi nga xam ne ëllëg yowmal qiyaam ñëpp dinañ omatu buuf guuf si keppaaru yonentu yàlla Muhammad amul du yonentu du saabi du kenn ñëpp ci biir roon yonent bi rek la ñuy uufu jëmm yërmande jooju alquran ne ko wa maa arsalnaaka ilaa rahmatin lil aalamiin yónni naa la nga nekk yërmande ñeel mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci xaalam bi yow xanaa bokkoo ci ñu bëgg yërmande yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wallahi yaa bon yaa texe xadi yaa ñàkk jom yaa mën a nar del wax loo xam yaa bon li nga wax ci jullit ñi tooñ nga ñu tooñ nga adduna bi yëpp tooñ nga mboolem jullit ñi képp kuy eewoo di wax baatu ashadu an laa ilaha illallah yow Moustapha Jaxate tooñ nga ko dëgg-dëgg yaa réer yaa yërëmut sa bopp dama ga tuub dellu ci yàlla te buñ la invité ci émission balaa ngay dem del xam looy wax tey nag beneen bi mooy sa wax ji na dakk ñu ngi sant yàlla bu baax di jéggalu ci kàddu yi lu ci leer ci yàlla la lu ci lëndëm ci gàtt xam-xam la ak ñàkk fasaha in uridu ila al islaha mastataxt wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkatu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu